salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak ñun tey ñoo ngi fii ci Touba di nekk ci waajtaayu li nga xam moo di màggalu Daaru Muxti kenn ku ñu fekk si di sët ci borom daaru mën naa ne di sët ci Serigne Touba sax waaye nag ku ne borom daa sëriñ Touba ak borom daaru benn la muy sët nag ci ki nga xam moo ku tedd kii di mam Thierno Birahim daamal daaro ñu jublu bisam muy fukki fan ak juróom ci weeru Saxbaan ku ne xam na ne bis la boo xam ne nii bokk na ci bis yi ñuy gën a faral di wuy ji te ci yoonu murit euh, sëriñ Moutalla Mbacke ginnaaw bu ñu la nuyu ñu ngi lay ziar ci waajtaay li nga xam ne di màggalu Daaru Moxti. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di nuyu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi fu ñu mën a nekk ci àdduna bi te di leen ziare bu baax a baax a baax a baax di nuyu mbokki yi fi nekk yëpp di ay mbokki jullit ak ay mbokki di wax qaala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu dëgmal bis bu mag muy bisu borom daarul moxti borom daarul moxti nag buñ ko tuddee mooy tudd nañ yoon wi rek ndax fi mu féete woon sëriñ Touba ak li ko sëriñ Touba jaraloo ndax boo demee ci mbindum sëñ bi mi ngi wax ne Ibrahima allazi lam yufaariquni fi shaqrihi wala fi kibarihi moom mooy Ibrahima mi nga xam ne mësut a tàqalikoo man ci waxtu ndaw ci waxtu mag. kon kooku bisam tuutul moom sëñ Moussa Ka boo demee ci marché sëriñ Moussa Ka mi ngi naan Bàmbaa ko jàngal alquran ak xam-xam jàngat liggéey la boole woon ba am ndam Bàmbaa ko yar ci waxtu chiqara yi mësta tàggoog moom ci waxtu kibari yi kon loolu muy wane ne kon buñ tuddee borom daaru rek tudd nañ sëriñ Touba ku màggal daaru mel na ne sëriñ tubaa ngay màggal ndax waykatu arab yi ñoo wax ne aqrabul awla lu gën a jege rek day gën a yay te borom daaru liggéeyal na Serigne Touba lu tax loo xam ne war nañ ko mën a wane war nañ ko mën a màggalal te bi ko bi nga xamante si ni Serigne Touba mi ngi koy sancloo dëkk boobu di daaru nga xamante si ni tey jii ku nekk yaa ngi waaj ngir dem fuklanteeg euh, Cheikh Ibrahima Fati Serigne bi ba mu ko koy sancloo daf ko wax ne ko xamal ne lépp loo xamante si ni am na Touba dina am foofu daarul moxti ne ko lépp loo xam ne itam nag amu fa dama ko amul waaye lépp loo xamante si ni am na Touba rek dina fa agsi loo fa gisul awuma ko kon loolu day wane ne borom daarul moxti am na fu ko Serigne Touba ba dem ba wax ne ko yaay sama loxo ndayjoor te nit mënta dem sans loxo ndeyjooram ndax loxo ndayjoor mooy lépp euh, loxo ndeyjoor boobu nag mu ko wax sëriñ bi yemut ci wax ko daf koo jëfee ndax bi nga xamante si ni mu ngi dem ci yoonu géej bi ko fi tubaab di jëlee ci naqar bu tiis ak bu metti lim gënoon a fonk muy yoon wi ak njabootam muy Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadil borom daarul moxti la leen dénk te bi mu ñëwee seede na ko ne ko ba ci baraada attaay yam fa bàyyi woon sax noonu mu ko fa bàyyee woon moom sëñ bi bi mu ñëwee noonu la ko fekkee nga xam ne seedal na ko ak maanuteem seedal na ko ak taalibeem muy koo xamante se ni Serigne Touba ko lépp tey bu ñuy wax borom daaru rek mën nga ne lenn rek doy na mooy Serigne Touba ko defal lépp moo ko jàngal moo ko yar te mësta tàqali ko Serigne Touba te ku amoon fulla la ku amoon fayda la koo xamante si ni da doon dund chariatu nabi sallallahu alayhi wa sallam da doon dund yoonu yenent bi mësuta nekk sax comme borom daaru am nay karaama am na baatin na yeneen ak yeneen waaye tey bu ñu tuddee borom Daaru Muxti rek li ngay njëkk dégg mooy fulla bu waxee rek waxi fulla lay wax wala bu waxee rek waxi lislaam lay wax waaye wax na wax boo xam ne wala jëf na loo xam ne karaama la wala dara te amoon na ko sax mais defu ko ndax loolu doon wane ne rek warmaal na Sëñ Tuubaa ci dëgg-dëgg warmaal amoon na xam-xam mënoon naa bind ni gaa yëpp di def mais warmaal na Sëriñ Tuubaa ba nga xamante si ni ñëpp xam nañu yegg na ci dëgg-dëgg warmaal kon kooku noonu bisam bis bu màgg la ci yoonu murit bis bu màgg la ci àdduna bis bu màgg la ci lislaam kon ñu ngi xamal mbokki taalibe yëpp muy dëkk boobu di Daarul Muxti lépp lu fa waay def Serigne Touba nga ko defal lépp lu fa waay jëf Serigne Touba nga ko jëfal ndax Cheikh Ibrahima Faati da doon kenn ci Serigne Touba bi mu doonee rakkam ñu bokk Serigne Mour Anta Sali dafa bàyyi léppam jaay njureelam jëndee ko taalibe topp magam ju baax jooju xitmaal ko xitma ku wér ba tey jii ku tudd Serigne Touba rek di nga tudd borom Daarul Muxti di nga xam ne kii nii dëgg dëgg dëgg dëgg rek kuy tudd karaamam rek mooy topp na Serigne tubaa dama koy wax benn mbokk keroog ñuy waxtaan mu ne ma euh, man dafa am lu ma jaaxal ma ne ko li ma ne ko nag ñun leen rek dañoo war a doy ci borom Daaru Muxti ne ñun sunu maam toppoon na Serigne Touba sunu maam liggéeyal na Serigne tubaa loolu rek doy na karaama loolu rek doy na doy na xamle kan mooy borom daaru loolu rek doy na xamle kan mooy borom daaru kon yàlla nañu yàlla yeggale ci bis boobu bañ jëf ci lu baax te ñi nga xamal ne mboolem taalib yi fay dem nañu jàng alquran jàng xasiida Cheikh Ahmad Bamba yi di def salaatu ala nabi te xam ne bis la boo xam ne benn bis la ci at bi kon bis la boo xamante si ni bunt la ci yoon ci dem ci yàlla bis la boo xamante si ni mën nañ cee tawassul suñu soxla yi bis la boo xamante si ni lu ci waay def yàlla dina ko nangu kon mboolem taalibe yi fa dem bu buñ jàpp ni mbir mi lekk la rek naan rek la waaye mbir mi dëgg dëgg dëgg dëgg jàng alquran jàng xasiida def salaatu ala nabi jubal dimbale dundale sa alal ngir yàlla moo waral bis boobu noonu kon ñi nga xam ne mboolem taalibe bu ñu demee nañ saxal loolu nañ wane loolu. dëkk la boo xam ne foofu lañ jàng waaw Daaru Muxti bu ñu waxee xam-xam tey day mel ni sëriñ Mahmadan Koso moom doomi borom Daaru Muxti la woon am na tànneef yoo xam ne ci ay sëtu sëriñ Touba lañ ku ci mel ni Serigne Abdou Hakim fa la jàngee ku ci mel ne Serigne Sidi Mbacke mu Serigne Abdou Lahad jaar na koso ci borom daarul moxti kon loolu day wane ne tubaa li mu ko sédd sédd ko ñu bari ndax Serigne tubaa amutoon lu dul xam-xam amutoon lu dul yàlla bëggutoon lu may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa wax ne kanzil kitaabu wal hadiisu wal adab laa jamhu fiddatin wala jamhu shahab man li ma denc ci sama diggante ak sama borom téere yàlla bi la ak hadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa ak ay teggin waaye dafa wax ne laa jamu fiddatin wala jamu shahab du caagi ne xaalis du caagi ne wurus kon li Serigne Touba denc borom daaru daf ko ko denc le mooy wane ne kon daarul moxti tey néew na ko tudd ci dëkk bi muy borom xam-xam te jaaru fa te loolu dafa doon loo xamante si ni sëriñ Touba moo ko ko rafaatale kon loolu mooy diggante sëriñ bi ak daaru loolu mooy diggante xam-xam ak daaru ndax Serigne Abdourahmane Mbacke bi nga xam ne. tey ñëpp koy tudd ci àdduna bi foo mën a dem am na ñoo xam ne sax xamuñu ko te ci ay kasetam lañ jàngee tey ki ko meññ doomi borom daaru Muxti la muy Cheikh Abdoul Khoudous sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Mourtala moom sëriñ Cheikh Fati Fall gis nga ko ni mel ci xam-xam te daaru Muxti la dëkk kon may gën a lancer message jeunesse su daaru Muxti njabootu borom daaru ñu gën a takkuwaat sàmm seen ndono ndax nit ndonoom rek la am muy li borom daaru nekkoon muy xam ak jub ak topp Serigne Touba te muy dëgg ci moom waaye mu toppee ci li nga xamante si ni mooy dëgg ndax toog na wax ne te boobu sëriñ bee ngi toog mu ne ku ma yilifoon te yilifoo ma ci dëgg bu ma la ko waxut tamit dootuma la topp kon te boobu sëñ tubaa ngi toog kon dafa wane ne sëñ tubaa mii mu topp ci dëgg rek la ko topp ci dëgg rek la ko topp ci dëgg la ko yilif kon ñun nañ jël loolu te ko sunu kanam te xam ne borom daarul moxti doy nañu idol doy nañu référence doy nañu li nga xamante si ni sunu yóbbal ci àdduna ak alaxira borom weesuwul fu sama mhm. xam bono xam nga bi ko Serigne Touba di yebal ndar xam nga ñaataat la am 30 ans fanweeri at la hmm. te boobu waxuma la sax ne la euh, waxuma la sax dem dem dem ndar mais ñi ñeme woon tubaab bariwut mais bi mu demee jox lettre tubaab bi lettre bi nga xam ne moom la ko sëñ bi yónni woon bi mu ko joxee lettre bi tubaab bi dafa ko wax ne ko lettre bi dañ ma koy tegal ci plate ma soog ma soog koo laal ndax boobu tubaab dafa seex dafa seexlu woon nit ku njuul waaye li ko boroom daaru tontu mooy ki ma yónni loxoog loxo la wax te man loxoog loxo laa lay jox boobu ngay xam ne sëñ Tuubaa noppi na ci moom foofu ngay xamee ne noppi na sëñ noppi na ci moom bi ko waa ji waxee daan na ko man duma jox nit ku ñuul loxo xanaa xamoo ne maam moom dar daf koo xamal ne ko kuñ nangamut baayam mënoo moom Ndar te nes na tuuti nga xam ne doo borom Ndar kon wane na ne yoon bi lu bari borom daaru joué na ci ay role yu am solo mais ñu baree baree bari daf ne tekk ba tey daf ne tekk te mënoo tudd sëñ tubaa ci dëgg te tuddoo borom daaru ku tudd sëñ tubaa ne dëgg man maay tudd sëñ tubaa dañ ci teg borom daaru ci wet ki ku la comme neex nag nga jël leneen ak leneen def mais nag ku tudd sëriñ tubaa dañ borom daaru ndax cosaanu yoonu murit taarixu yoonu murit ca njëlbeen ga dëgg-dëgg ba muy metti sëriñ borom sëriñ tubaa borom daarul moxti la te avant sëriñ tubaa di woote ñoom ñaar la woon mooy li ko sëriñ Moussa ko wax Bàmbaa ko jàngal alquran ak xam-xam jàng ak liggéey la boole woon ba am ndam Bàmbaa ko yar ci waxtu siqar yi hii mësta tàggoog moom ci waxtu kibar yi hii mësta jiwloo ndigalug Cheikh Bamba mësula fanaan fudul ca suuf fa ba kon moom ba muy ànd ak sëriñ Touba sëriñ Touba wóoteegut ndax bi nga xamee ne sëriñ Mor Anta Sali mii seen wéjur wàcci na liggéey sëriñ euh, Touba bi ñuy miiraax sëriñ Mor Anta Sali dafa wax ne jox leen ma kaamil bi ak Ceerno ndax xam na ne borom daarul moxti yàlla daf koo amal ngir rek mu jàppale Serigne Touba ci liggéeyam bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko yàlla yónnee sàkkal na ko ay saxaaba borom daaru nag mooy saxaaba yi ñoom ñooy saxaaba yi ñoom ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba xitmaal ko guddi xitmaal ko bëccëg kon loolu rek la ñu war a topp ñun ndaw ñi am nañ royuwaay am nañ ay référence am nañ ay idole waaye nag bu ñu jëlee idole yooyu tegee leen ne le topp àdduna bi loolu du jëriñ dara. kon maa ngi xam le mbooleem sëriñ si maa ngi xam le mbooleem mbokki taalibe yi li sunu mag ñi samp sampu mënuñ koo sempi waaye buñ ci jéem a yàq dara buñ ci jéem a ñaaw nañ topp loolu kon Daaru Muxti dëkk la boo xamante si ni lu fa waaye ñaan yàlla yàlla nangu ko ndax jàmbaar ji fa tëdd Sëriñ Tuubaa gërëm na ko ci zahir gërëm na ko ci baatin ndax waxoon na ko ne ko ceer na mu ne ko Mbàkke mu ne ko lépp loo gis ci àdduna sa liggéeyu ndey soxna Faati Isa la sa liggéeyu ndey soxna Faati Isa la waaye ëllëg dinaa la fay ba ñëpp defen dama séddoo ak yow kon loolu kenn du ko xeeb loolu du dul tuut loolu du lu ndaw nañ jàpp loolu te doyloo ko te sàmm ko wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin